mais Thierno Alassane Sall candidat majeur vacciné libre moom moo leen porter recours. waaw ana Thierno Alassane Sall ana Amadou Ba. Maïmouna. dama bëgg nga expliquer ma rek nous sommes nous sommes nous sommes dans le milieu politique. waaw. nous savons que des gens. portent dañu nekk ci milieu politique. Mhm. am na ñoo xam ne ñi dañuy def di defloo. fii il y a des alliances ci se nouent qui se préparent donc ñan ñoo am intéret pour euh, Karim bañ a bokk mooy ña nga xam ni ñi Karim su bokkee mais ñoom du ñu exister. mais boo révisiter boo révisiter l'histoire le passé politique de Thierno Alassane Sall jàpp nga ne mën nañ ko def loo ku ñu mën a def loo loolu la ak fa mu jaar ak ñoom yépp bon je ne peux pas visiter ça parce que xam nga lu tax euh, nga baal ma mais il ne m'intéresse pas. mais non il doit vous il doit vous intéresser. il non, vous non, tomber non je veux dire en tant que personne. intéressé wu moo tax tey jii su ma waree wax ci moom foog ma wax si pour si si nit ki te loolu intéressé wu man je parle de Karim Wade je parle du processus qui a conduit à l'élimination de Karim en tant que candidat. si loolu laa bëgg a insister. alors le recours le recours porté par celui qui s'est prêté au jeu de Amadou Ba a fait que tey jii on constate quand même que c'est le régime qui s'acharne sur la personne de Karim au point de l'empêcher pour une deuxième fois de ne pas participer à l'élection présidentielle mais moo tax mënuñu bañ a ñàkk ci Thierno taxaw ci Thierno xam nga lu tax. Mhm. c'est personne de Thierno Alassane intitut personnel. Mhm. mais Thierno Alassane Sall leader de la République des valeurs. Euh, est-ce que yow am nga njort ne ak fa mu jaar ak ay waa ex camp ak ses positions dans l'espace politique ak valeur yi muy clamé est-ce que jàpp nga ne nit ku ñuy defloo forfaiture la jeune ne dis dañ koy defloo forfaiture dama ni man Amadou Ba moo moom laay wax si fii waxuma keneen je ne parle que de Amadou Ba dama ni Amadou Ba moo defloo ku ko def nag yaa ko nangu l'histoire retiendra mais c'est Amadou Ba qui a fait que Karim Wade am euh, dossier am ñu def ci recours ba lii am ce que nous contestons d'ailleurs décision conseil constitutionnel bi il y a beaucoup à